Salut les amis de Baba Show merci encore gars de la confiance voulez, merci de woy de like merci surtout gars de abonner, de di bës di cloche notification pour partager également vidéo yi gars commenter aussi que ci jeu concours la semaine prochaine également dinañ euh, commencer waat pour dire yenen gagnant parce que nous bëgg ñëpp kuy abonné rek ngay participer saa su ah, nga gagner aujourd'hui avec Baba on va parler d'histoire mais football dañuy wax ci joueur il est connu comme étant l'un des meilleurs joueurs au monde muy qui di Cristiano Ronaldo ñu CR7 pourquoi Cristiano Ronaldo tudd CR7 Plus tard, le numéro 7 gars yi loolu lañ leen parce que nous bëri gars yi surtout génération bu bees bi bañ ñi xam Cristiano Ronaldo bañ xamee ba numéro 7 dañ ko numéro 7 lañ ko xamé mom lay sol ba tax club bu mu dem jamono ji ni mom lañuy gis mu dal di koy sol mu nek ci ginaawam muy numéro 7 bi ñu bind ci turam mais il faut savoir que Cristiano Ronaldo nag gars yi ah, dafa nek ko xamné il a marqué l'histoire du football. Il fait partie des meilleurs joueurs au monde, plusieurs fois Ballon d'Or, hein, mais également gagné Ligue des Champions à maintes reprises. L'icône moy gagné Coupe du Monde. À part ça, il a tout gagné. Cristiano Ronaldo, à ses débuts, Sporting la l'année il ne portait pas le numéro 7 daan won sol numéro 7 au début numéro 28 la doon solo. Tant yi mi ngi woon Sporting au niveau du Portugal ci club am formateur am fa la nekkoon di ko sol foofu nag la ko nit ñi xamee euh, nànk-nànk il n'était pas si connu que ça ba ñi nga xam ne mooy scout yi maanaam ñi def repérer ñi repérer joueurs yi nekk ñi nga xam tamit ñoom la waa Manchester United yónni ñu daal di koy gis boobu il portait le numéro 7. Cristiano Ronaldo mais non donc après son transfert du Sporting vers Manchester United au début il a porté même le numéro 10 mais bon c'est parce que numéro 7 bi disponible mais mais Cristiano Ronaldo mon beau mignon Manchester c'était en 2003 dafa bëggoon a numéro 28 qui nag di seul Alex Ferguson ma ne ko eh numéro 28 jëlal numéro 7 bi moom ngay sol par force l'autre tax mu ko moom par force parce que daf ko bëggoon wan ah, signe de confiance la jox ko motivation wax ko numéro 7 bi aussi ñu Book ay kàngam ñoo sol ay David Beckham sol nañ ko ah, nga xam Eric Cantona sol na ko ñeneen ak ñeneen sol nañ ko si la ko Ronaldo commencé sol mu jógee fa dem Real fekk boobu également Raoul a nga fa 7 disponible 9 ba rawul mu jël numéro 7 bi par la suite Cristiano Ronaldo marqué histoire il a quitté ñi nga xam donc Real Madrid dal di dem au niveau de la Juve ba mu au niveau de la Juve. muy seul également numéro 7 mais en même temps numéro bobu non top ko ba li nga xam moy donc au niveau de la Seleção portugaise muy sol également numéro 7 Cristiano Ronaldo donc aujourd'hui looloo tax gars muy sol numéro 7 c'est grâce à Sir Alex Ferguson gars yi woy di like woy leen di abonné on avance ensemble gars yi jaa